mooy fi'lu maadi mooy fi'lu bi nga xamante mooy tegtale lu passé fi'lu mudaari mooy fi'lu bi nga xam a teg lu teew wala luy ñëw fi'lu amr mooy fi'lu bi nga xamante ni moom moo lay digal tey nag li ñu jàng mooy fi'lu bi nga xamante ni mooy tegtale lu passé al fi'lu maadi mooy fi'lu maadi al fi'lu maadi fi'lu maadi mooy fi'lu bi nga xamante ni dafay tegtale lu passé moom nag fekkee ne si olof la booy wax lépp na lay mujje bu fekkee dañ koo wax si beneen langue tamit bu la jaaxal naka doon tamit bu fekkee na ci araab la lay lu muy wax yëpp fataha lay mujjee mu ne jaraa daw na yaa ngi gis jaraa daw na na la mujjee si olof waaye fataha la mujjee si arab jaraa daw na alkalbu xaj bi waqafa taxaw na ar rajulu góor gi daa sànku na kitaabu téere bi boo xoolee yëpp bu fekkee si olof na la mujjee waaye bu fekkee si arab fataha mujjee mu ne daqati sone na asaatu montoor bi jaati dikk na albintu xale bu jigéen bi baadati nen na addajajatu ginaar gi nee kon fii boo xoolee yëpp fataha la mujjee comme jara fataha la mujjee waqafa naka noonu fataha mujjee waaye bu fekkee ne danga bu fekkee ne nag danga koo firi si olof boobaa na lay mujjee xam nga ne jaraa daw na waqafa taxaw na daa sànku na kon yooyu noonu yëpp boo xoolee na la mujjee lii nag moom dañ koy lanraab kon dem nañ ba commencé dugg si fenxol yi faaw ñu commencé jéem di lanraab mu ne jaraa daw na jaraa fenxolu maa di mabniyun ala alfata almuqaddar ala axiri nee na jaraa fi'lu maadi la buñ fataa fataa buñ natale si mujj ga kon noonu lañ koy lanraabee si olof waaye bu fekkee ne si arab la moom nag naan jaraa fi'lu maadi mabniyun ala alfata almuqaddar mabniyun ala alfata mu ne jaraa fi'lu maadi la buñ binaa si fataa buñ si mujj ga mu ne kon jaraa noonu lañ koy li'raabee waqafa taxaw na yi moom ay faa'il la mooy alkalbu yooyu noonu yooyu jarñee li'raab nañ li'raab mooy yi nga xamante ni mooy fi'lu maadi mooy jaraa waqafa waqafa fi'lu maadi mabniyun alal fataa az-zaahir ala axiri waqafa fi'lu la buñ binaa si te mooy lu feeñ ci mujj ga mooy lu feeñ ci mujj ga kon boo koy leeral ci wolof noonu ngay wax bu ci arab la naan na daa fi'l maadi maadi mabniyun ala al-fata az-zaahiru ala axirihi nee maadi la buñ fataha mooy lu feeñ mujj mu ne daqati sone na asaatu montoor bi daqati fi'lu maadi mabniyun ala alfata azzahiru ala axirihi wa taa'u litta'niis daqati fi'lu maadi la buñ binaal ci fataha mooy lu ci mujj taagi nag dafa ñëw ngir jigéenal yi nag yaa koy lirab nga yokk si wala zahaba mooy jaat dikk na albintu xale bu jigéen bi baadati nen na adda jaajati ginaar gi nuñ langaraabee daqati rek noonu lañ koy langaraabee mu ne kon langaraab nit ki dafa war a mun langaraab comme ko dem nañ ba commencé dugg ci fexlu dafa war a mun langaraab léegi nag fexlu maadi yi boo ko bëggee dugal ci damir bu fekkee ne si nit ki la moom si boppam loolu ñaar la mooy ana wala nahnu misaal comme nit ki ne ana bu mu bëgg wax moom dóor na mu ne ana darabtu boobaa daf si yokku taa rek nekk ana darabtu na bu fekkee ne nit ki la moom ñaar la am mooy ana ak naxnu bu bëggee wax man dóor naa dana ana ana darabtu boobaa daf si yokku mu damm ko ana darabtu waaye lu mu waroon a doon mooy ana ana darabatu waaye arab dafay bañ ñeent maska yu toftalantoo loolu arab daf koy bañ bu fekkee ne nag ci fi'lu la ak fa'il la boobu moom dañ koy bañ waaye bu fekkee ne ci fi'lu la ak maf'ulun bi boobu moom bañuñ ko bu fekkee nag dafa bëggaal waxam naxnu mu bëgg see dugal fi'lu maadi mu ne kon danaan naxnu darab naa naxnu darab naa booba daf say yokkutaa mu sukkoon ko daf say yokkutaa mu sukkoon ko naxnu darab naa maa ngi jum sax bu bëggee jël nu dugal si fenlu maa di danaan nu darab naa booba day sukkoon baagi yokk si nuun mu nekk naxnu darab naa waaye bu fekkee ne ana moom mu bëgg see dugal fi'il maadi danaan ana darabtu boobaa da si yokku taa mu damm ko bu fekkee ne nag kim jàkkaarloo la ko juróomi anam juróom benn anam la am comme misaal anta anti antuma antuma antum antun la bu fekkee dafa jël kim jàkkaarloo anta mu bëgg see dugal fi'il maadi danaan anta darabta danaan anta darabta boobaa dafay jël baag mu sukkoonal ko mu yokk ci taa mu nekk anta darabta bu fekkee nag jigéen la danaan anti darabti danaan anti darabti ku jigéen gi dóor na mooy anti darabti dafay boobaa dafay jël dafay jël kii gi dafay jël baagi mu sukkoon yokk si taa mu nekk anta darab anti darab tii bu fekkee dafa bëgg wax yéen ñaar ñu góor ñi dóor ngeen danaan antuma darab tuma antuma darab tuma day sukkoon baagi yokk si tuma mu nekk antuma darab tuma naka noonu tamit bëggee wax ñaar ñu jigéen ñi dóor ngeen danaan antuma darab tuma day sukkoon baagi yokk si tuma bu fekkee nag dafa bëgg wax mbooloomu mu góor ñi dóor nañ danaan antum dorobtum antum dorobtum boobaa dafay sukkoon baagi mu yokk si taa mu yokk si tum dafay sukkoon baagi mu yokk si tum nekk antum dorobtum naka noon tamit bu fekkee dafa bëgg wax mbooloomu mbooloomu jigéen mi da góob dafay def antunna dorob tunna fekkee daf bëgg woo mbooloo mu jigéen dóor nañ day def antunna dorob tunna maanaam dafay sukkoon baagi mu yokk si tunna loolu boobaa bu fekkee ne mbooloo mu jigéen dafay def antunna dorob tunna léegi nag bu fekkee ne ñi nga xamante ni ñoom nekkuñ fi ñooñ tamit am nañ juróom benn anam juróom benn nañ bi si njëkk mooy huwa ku fi nekk boo bëggee wax moom dóor na nga bëgg see dugal fexlu maa di danga naan huwa daraba moom moom danga koy bàyyi nu mel danga naan huwa daraba moom danga koy bàyyi nu bu fekkee la jigéen la nag danga naan hiya darabat boobaa danga naan hiya darabat dangay danga koy bàyyi nu mel rek yokk si taa sukkoon mujj fekkee da ngaa bëgg wax ñoom ñaar nekkut dóor nañu lang naan huma ñoom ñaar ci fi nekkut darabat darabata bi ma wax ni nag mooy bu nekkee jigéen bu fekkee ñaar jigéen ñi fi nekkul naan huma darabata bu fekkee ñaar ñu jigéen ñi fi nekkut naan huma darabata bu fekkee ne nag ñaar ñu góor ñu fi nekkut tamit dang naan huma daraba dang si yokk alif naan huma daraba bu fekkee ne nag mbooloo mu góor mu fi nekkut dóor nañ dag naan hum darabu hum darabu da nga si yokku waaw hum darabu da nga si yokku waaw bu fekkee ne nag mbooloo mu jigéen mu fi nekkut dag naan hunna hunna darab na fekkee ne mbooloo mu jigéen mu fi nekkut dag naan hunna darab na kon loolu mooy damir yi nga xamante ni boo fi'l maadi boo boo ko dugalee si damir yi loolu moo nekk li nga xamante ni mooy damir mu ne albaxasu lii mooy gëstu bi mu ne te amal seetantal alkalimatul ula baat njëkk fii am si li saabiqat si misaari jiitu tajidaha da nga ko fekk afaalan muy ay fi'lu nee na boo seetantalee misaali njëkk yi baat yooyu di nga ko mu nekk ay fi'lu fi'lu yi nag wax nañ leen mooy ñett la fi'lu maadi mooy fi'lu bi nga xamante mooy tekki jëf ju passé fi'lu mudaari mooy fi'lu bi nga xam mooy tekki jëf wala jëf ju teew fi'lu amr mooy jëf mooy tekki jëf ji nga xamante ni mooy dalay digal mu ne la anna kullu minhaa na képp si ñoom yadullu day tegtale ala husuli amalin saam jëf fii sama nil si jamono bu jagoo ma la wax mooy fi'lu yëpp bu nekk dafa am buy tegtale si jamono bu jagoo buy tekki jëf si jamono bu mu jagoo comme fi'lu maadi fi'lu maadi dafay tekki jëf si jamono bu passé fi'lu mudaari dafay tekki jëf si jamono bii ñëw wala jamono bu teew fi'lu amr nag moom daf lay digal mu ne wa isaa tadabbarta boo seetantalee haza zamanu bi le jamono fii kulli min haa ci képp si ñoom wajatahu da nga fekk zamanan muy jamono maadi yéen bi passé mu ne mu ne boo seetantalee nag jamono jii nii nii ñi nekk jamono jii ñuy wax nii mooy da fekk mu nekk si jamono ju passé mooy fi'lu maadi fi'lu maadi moom mooy tekki jamono ju passé mu ne fa kalimatu jaraa baatu jaraa nag fii misaalil awal ci misaal bu njëkk bi ta dul day tegtale ala jarin ci daw fii zamanin si jamono allasi ba nga xamante ni ma daa passé na xabla takallam njëkk mu ngay wax nee na baatu jaraa nag moom moom dafay tekki mooy si baati jaraas misaal bu njëkk moom dafay tegtale si daw maanaam nit dafa daw ba pare ñu door kaa nettali loolu mooy lu passé maanaam nit dafa daw ba pare ñu door kaa nettali kon fexlu maat wax nañ leen mooy tekki jëf ju passé maanaam nit dafa daw ba pare ñu door kaa nettali ne nangam daw na mu ne wa kalimatu ak baatu waqf nag fil misaali saani si misaal ñaareel bi tadulu day tegtale alal wuquufi ci taxaw fii zamani si jamono allazi ba nga xamante madaa ma na passé na qabla takallam njëkk ñu wax aydan ba tey nee na baatu waqafa moom mi nga xam mooy misaalu ñaareel bi day tegtale si taxaw si jamono bi nga xamante nii wax nañ ko ba pare maanaam si jamono bu passé maanaam nit ki taxawoon na ñu ne dañ ñu ne waqafa taxaw taxaw na moom taxaw na ba pare boobaa kon loolu dafay tegtali si jamono bu passé waalum bu jara naka noonu nag comme nu misaalee nu misaalee jaraa ak waqafa noonu nañu misaalee yeneen i timit mu ne wali saalika loolu tax tu sama dañ ko tuddee kullu kalimatin bépp baat min kalimatin ci baat yi fenlu maadi yan mooy fenlu maadi mu ne baat yi nag yëpp moo tax baat yi da dañ tudde tuddee fenlu maadi wa kazaalika naka noonu jamiul kalimaat mbooleem baat yi allati nga xamante min haasa nawin ci bi la xeet mbooleem baat yi nga xamante ni si bi la kom comme maanaam comme zaaba xaraja yooyu noonu yëpp fenlu maadi la donte ko fii sax waaye fenlu maadi la mu ne alqaidatu lii mooy tënk bi mu ne al fenlu maadi fenlu maadi hoo moom kullu fenlu ma bépp fenlu nga xam ne yeddul day tegtale ala husuli amalin sa am ak jëf fii zamanin maadi ci jamono bu passé nee fexlu maadit mooy bépp fexlu bi nga xamante ni dafay tegtale jëf si jamono bu passé fexlu maadit mooy fexlu bi nga xamante ni dafay tegtale jëf si jamono bu passé kon xaayida bi nag da nga koy mokkal naka noonu tamit bul fàtte lu ñu la waxoon mooy ne jaat bintu baatati da da jaajatu ak xaraja saaba yooyu noonu nga li arab ko bu ko fàtte da ngay jël sa kay nga li arab ko naka noonu tamit laxaraa bi da nga kaa war a mun naka noonu tamit xaaxida bi tamit da nga kaa war a mokkal xaaxida bi lu ñu war a mokkal la xaaxida yu ñu jàng si ginnaaw yëpp ak yi ñëw yëpp da nga kaa war a mokkal kon loolu lañ jotoon a indi si dars bi lépp lu si jub si yàlla la lépp lu si dëng sin gàtt xam-xam la in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته